lépp dina leer dégg de léegi nag bu ngeen xamee ba mu des ngeen parce que lii may def nii du lu ndaw réseau yi ma nekk ba xam ba am yi du lu ndaw risque yi ci xam ngeen ko mais amul benn risque boo xam ne ñun pare wuñu pour jël ko ngir Sénégal nous sommes des patriotes suñu doon rey rey rey suñu sang di gicle nan xam nga c'est du sang d'un patriote qui gicle

la nga doon xex yépp tay ñu ngi koy dëggal way way bu len nek ay traite bu len nek ay lâche bu len xam ba nopi lem bu len xam ba nopi dugg seen i bu nit sacrifier addunaam yépp ngeen ngeen ngeen xam ba nopi nak tok bank seen loxo na pàgg seen jek dem Touba ki tiawon di ak na ton den way way nek len ay nit lo rek ma ci amal njariñ su ma mën sacrifier sama bop bu yéen ñëpp ngeen dund nek ay nit min mi ko ci loxo Touba jek libanay mafia bi nek ci rew mi di recycler drogue bi ak tagaji yo seen kenn mënu ko wax sax yépp kenn mënu ko wax li ma xam yépp mënu ma ko wax li ma war a wax yépp mënu ma ko wax lii ma leen wax nag asaka ci li ma xam la am na loo xam ne ñemeegu ma ko sax wax lu ma am am fit am na loo xam ne ñemeegu ma ko wax parce que ñi ma ko seqal la xam naa leen xam naa seen capacité de nuisance xam naa ñoom milliards yi ñuy drainer ak enjeu yi nekk ci mbir mi xam naa lan la leen njëriñ ñoom daañu monter ay nit en Europe monter ko aux États-Unis financer ay nit tout ça infiltrer ay nit tout ça pour ñu jéem a attenter à ma vie mais <laughs> man damaa man xam nga ñoom dama leen di teel a dama leen a dama leen a infiltré ñoom dama leen a ñoom seen biir dama damaa am ay nit yu nekk seen biir yu may wax li xew yëpp loolu mooy sama avantage moo tax bala ñoo jóg ma xam ne xew bëkk leen bi ma waxee ci Elimane Lam mu mer woo Dior Diagne kaabale ko ñu wax ci Dior Diagne dafa mer ba toj que moom day xam nga c'est une drogué day bu meree day toj kaas yi rajaxe yëfi tubaab yooyu saaga ndey peegar la daal di woo Antoine Diome kaabale Antoine Diome pour que ñu jóg ci man parce que mom jor Diagne si nga yalla xam na li ma xam ci mom yëpp duma ko wax amna lo xam rus ko wax mais ñi ñi ma leen ñu tuddal yëpp ñoy mafia bi tey réew mi and ak Macky Sall moy chef de gang Macky Sall nak moy chef de gang mo nek ci kaw bu demee Touba te Touba sëñ Mountakha ne ko boole la ak Serigne Touba ma ko ak Serigne Touba mafia chefu mafia nga boole Serigne Touba ki nga boole Serigne Touba moy chefu mafia bi mu dem fee ki naan ko 20 mandat mu ne ko ah yaa ngi wallaay yaa ngi yéene mafia bi def mandat sa mafia bii nga yéene vingt mandat ci boo xamoon Eliman Lam Eliman Lam ci la bokk wax naa leen ko dugal naa photo gis ngeen Eliman Lam restaurant chez Katia war na leen wax naka la def ba jënd ko ku ko jënd kan moo jënd restaurant chez Katia jox Eliman Lam ci ban xaalis lañ ko jënd xaalis fu mu jóge ñu ubbi beneen deuxième restaurant chez Katia dans les sphères de Diamniadio damaa am ñu nekk seen biir di ma wax li xew yëpp sphère Diamniadio yi nga xam ne mooy ministériel yi sphère ministériel yi nekk Diamniadio Macky Sall dafa signé ak Marième Faye Sall ñu ne nañ fa ubbi restaurant Chez Katia exclusive moom rek moo fa am droit di bu luxe ñu def ko ci biir jox ko moom exclusivité bi moom képp moo ko fa am sañ moom moom moom moom moom Elimane euh, Lam parce que parce que dafa am ñu muy liggéeyal moom Elimane Lam li mu yore dafa am ñu ko moom làqatoo ko ci turam moom Elimane Lam loolu moo tax muy def loolu moom ilimaan la gis nañ ko bëgg dem ni Macky Sall ñoom bay dem Dubaay mu ànd ak moom ñu jóge fa dem màkk ne dañuy <laughs> da ngay seetlu maanaam dañuy def seen de ma dañuy dañuy jaamu ji yàlla subhanallah pour nax Sénégal yi di photo ñoo bon ilimaan làmba bu leen fàtte ne moom lañ ne moo porté woon plainte ci jël ay appareil téléphone gis ca photo kilifa yooyu ba coow la ca am am ca ak passeport yaay ilimaan lam boobu moom ngeen gis mu toog ci photo ci kaw taabalu Macky Sall ca Dubaay moom Macky Sall ñuy souper souper xam ngeen mooy lan souper ci tubaab mooy lan mooy ñuy reer ñuy lekk supp ilimaan lam fu mu toj kenn ngeen ko xam Aziz Ndiaye nag mooy doomu ndey ñoom ñaar duñu tàqalikoo Aziz Ndiaye bi ngeen xam Aziz Ndiaye ñu nekkoon ci làmb ji war na wax fu mu xaalis moom it xaalis bi muy liquidé xaalis bi muy génne ak dinaan damay defal léeg Touba Tiwaawan ak kër kër nañ ñu wax fu ñu jëlee cent tonnes ceeb yi ñu yóbbu ci màggal bi jox ko mun taxaa ak san nag yi ñu séddale kii joxe cent tonnes ceeb kii joxe cent nag ñoom ñaar Aziz Ndiaye Eliman Lam dugal ko Touba xaalis bi nañu wax fu ñu ko jëlee fan la xaalis bi jëlee jóge ñu jox ko Baali Muntaxa ak ñeneen ñeneen nag ak ak ak soxna Moundou xam bu Cheikh Basak ak ñeneen ñeneen nañ ñu wax ñoom li <coughs> lépp kenn mënu koo wax xaaral ma noppi sax ma ne ko xaaral ma noppi sax. Ablaye Wade bi ñëw bu ñëwee Macky Sall lay àndal campagne ko comme na mu defoon 2019 ba mu demee Conakry ñëw noppi day waat parce que mi ngi négocier ak Macky Sall Macky nee nañ ko jàppale leen ba ma jeexal su ma jeexalee ñu xool ni ñu def pour négocier ak yéen tout ça nu a toogaat loolu lay dox. ngi teg dil nag waaye Karim yàq dil fois Ablaye Wade teg dil ak Macky Sall Karim ci boppam moo ñëw yàq dil bi moo tax mënugul a sotti ba léegi saa yu Ablaye Wade tegee pion ak Macky Sall Karim yàqu ndax Karim moom xamul dil ndax muusul Euh, il est fougueux il est rancunier il a envie de se venger day xeex mooy yàq dul Ablaye Wade yépp loolu mooy seen cat moo tax mënaguñoo jubóo waaye bu mu leen bett soo am Wade ni Pape Diop ak Bouga ñu rapproché wu ak ak ak ak Katia Ndar xam nga tuddati Ahmed Fall Braya ñoom ñooñu ñëpp c'est l'héritage du PDS qui est en jeu parce que héritage du PDS ñoom ñëpp foofu lañ nekk héritage du PDS Allah, Wade dafa jàpp ne mon, moom moom PDS alalam la. donc ay doomam doomam bi bi mu jur moo ko war a doon Macky Sall na ko du ci dal Idrissa sekk na ko du ci dal Pape Diop na ko du ci dal ñoom ñëpp ñuy xuloo li téye Sénégal yëpp ci ci ñaar fukki at yi ab ci Ablaye Wade képp la li ñu dal yëpp Ablaye Wade mooy lan ñu dénk ko suñu réew mu jël réew mi jox ko ab sëriñam ñu dénk ko suñu réew mu bëgg ko jël jox ko ab doomam lii moo téye Sénégal lii mooy catu Sénégal ba li ci xew xew ci Idrissa Seck dugg ci kasso Macky Sall ñu dàq ko ci mu falu momit di fayonte Karim Wade ci kasso ba pap job jaar fe ñu lo ba léegi ñom ñom neen la de lolu moy système mafia bi nak tank na wuñu ko seppet sàdd ca àll ba réew mi di dem système mafia bi Abdoulaye Wade moy koobar bi moy magget mi nek ci bi système bi dejjet sànni ci alu ba buñ ko deful Sénégal du dem du ngeen jóg ci jafé jafé ak ndol ñom ñëpp ay multimilliardaires lañu raw Abdoulaye Wade il est riche comme Crésus li mu ci alal ba jant bi wacc du du jeex Abdoulaye Wade ak njabootam Macky Sall mom waxale wu ma ko yéen yéen ci ndol bi ñu leen nax nah, nan leen barki Serigne Saliw barki Serigne Touba barki El Hadj Malick barki Cheikh Oumar Fouti yoy dañ leen di gemlo di tànn tak takk tok eh, ay ceeb ngeen di fecc ak dal di tëñëx tëj leen fenn ku ci febar de ci armali yaagi fess fees ñoom seen doomi neeku ñu ci kasso yi ña nga ci ñi ngi dund yeen ngeen di bëgg de bu election ñu dañu tak seen sol seen bu mbubb baax ak seen 4 4 yu baax wacc ngeen am seen complexe ñoo di leen làkki tubaab di leen dig lu nekk ngeen di ko rek ñu déggaate rek saa yu ñëwee nax leen rek du ngeen nekk nit mukk yeewu xam ne ñii ay naxaatekat lañ ñaar fukki at buñ leen mënta génn ci ndóol kañ la ñu génn ci ndóol du ngeen jël ñii ñëpp seppi teg fay indi ñu bees teg du ngeen ko def kon loolu mooy ñaareelu poñ bi mooy premier poñ bi ci local bi foofu laa yem donc di wax ne il faut que waa la coalition soit vigilant Yewwi Askan Wi Dakar c'est un enjeu nañ ko jël jox ko Barthélémy Dias te Macky Sall dafa am stratégie bu mu joué boo xam kenn bàyyiwu ci xel nako wax moy da fay diviser fépp foo xam ne mënu ko gagner xamna na ne mënu ko gagné dafay fexe ba mu am une pluralité de candidature c'est une stratégie parce que système d'élection bi mo doy waar dafa am une partie ci ñi wara fal ñoo xam ne dañ leen di fal sur la liste majoritaire le raw gàddu c'est un scrutin à un tour buñ ñu 100 cent conseillers yu ñu y a mairie quarante def ko ci liste majoritaire bi def ko ci liste donc daanaka bo rawee rek ci liste majoritaire bi rek am nga 45 élus 5 personnes wala pour majorité day sondage yi ak élection yi am mu jël ko ko jël chiffre tendance bi faible fi tendance am baax na dafa moyen tendance baax fofu day ba division mais fitanaasam baxul nga xam mënu ko gagner day fexé ba out division fofu non seulement day out division ci bir opposition bi mais day out sax division ci bir parti mom bok na ci Ziguinchor gee li tax mu diviser zigen mooy xam na ne digen Ziguinchor mënu ko gañe Balde mënu ko gagner comme da koy ñak dans tous les cas da koy ñak il prend tous les risques parce que qui ne risque rien n'a rien et celui qui n'a rien ne perd rien il peut tout risquer c'est ça la stratégie celui qui n'a rien il n'a rien à perdre, donc il peut tout risquer. Comme il sait qu'il perd Ziguinchor, il multiplie les candidatures. Benoît Sambou impose à la place de Balde. Parce que li mu ken mooy fa am majorité parce que vous multipliez les candidatures, si vous raw vous avez un avantage parce que l'électorat a fait éclater wu qu'elle nous un petit bout ce qui fait que s'il a le peu il peut même avoir la mairie il peut même avoir le scrutin majoritaire le regard les 45 pour c'est ça la stratégie de Maxa. Mais si enquêtez il est solide. À Thiès, par exemple, parce qu'il est avec Idriss il pense pouvoir gagner. Dans la région de Djurbel, il pense pouvoir gagner parce qu'il y a l'électorat de Touba, où il y aura une seule liste, ça a été validé depuis l'inauguration de l'hôpital, devant le représentant du Khalif, ben liste Mafiam, liste que pouvoir, mais Macky Sall, ou on s'en donc on problème. Donc Khalif, il a liste unique, euh, euh, voilà, il va gagner le département de, de, il va gagner la commune de, de, de, de Touba, Khalif, il va gagner le département de Touba, réew mi tegul fenn mais kenn du ko kaas Abdou Karim Gueye xurma di ko xaar du ko kaas xalaat TV di ko kaas kenn ci réew mi di ko kaas man dof bi dong maa koy kaas man xëy na dama dul sénégalais man moo tax wala xëy na man xaw ma dëgg moo tax wala man damay kaas rek li may wax tegul ci yoon charte réew mi li may wax àndul ak charte réew mi xëy na loolu moo tax waaye maa ngi génn ci yàlla ne li may wax nii mooy li nekk ci mooy dëgg te mooy kenn du ko wax lii rek moo nekk ci réew mi naa fekk géefi ne su ko defee ni muy def moom Macky Sall mooy fi nga xam ne dafa foor day fexe ba am mbooloom du tas pour que mu gagnions a Si nous fi mu faible day faire ba tas ko loolu nak ñi xam élection xam les modes de scrutin xam le système majoritaire et le système proportionnel xam lan moy sondage xam lan tendance xam les forces faibles et les forces moyennes et les forces donc euh, gagnantes yep parce que nous, dañu nek ci palais ay moyens dañuy am ay chiffres dañuy am ay ay données dañuy am ay échantillons ci yooyu ci non la ñuy liggéey ñoom donc ñu ñi nga xam ne voilà ils payent des des de vrais sondages pour xam du benn du ñaar ñett donc xam nañ suñu ñu fort ak suñu ñu faible fi mu faible da koy yàqate da koy jaxase fexé ba candidat yi bari am na ñoo xam ne tey ci biir kanamu Macky Sall Macky Sall mo leen pousser pour ñu nekk candidat mais seetu leen bu baax ñi nga xam ci biir candidat ci biir benn boo ko yaakaar lañ bokk ba noppi nekk candidat fi ñu nekk candidat yépp Macky Sall mënu fa gañe

may wax ni nañu ubbi suñu xel yi mobiliser wu taxaw tem pour soppi li fi ne parce que Macky Sall mooy def campagne bi de campagne bi ñu jëm nii moo koy def day jóg dina wër Sénégal na day tournée économique tout ça day campagne dina campagne donte yoon daf ko ko tere mais dina ko def bi nga xamee ne élection présidentielle yi ñëw na 2019 mu xamné bu candidat yi bare du jall premier tour té bu demee deuxième tour ñak na gis nga li def parrainage lañ di teg forcé ko ñëpp tan ñi ko neex taxaw def ay résultats né mo gagné parce que élection présidentielle yi wessu bu amone liste yu bari Macky kenn waxatu ko kon tay keneen mooy nekk président mu fexe ba damm loxo Sénégalais forcé leen ba mu jallé nag ba toog élection locale yi ñëw c'est vrai def nañ ci ay recours contester ko tout ça c'est CEDEAO mu dindi ko ci élection locale yi may laaj ndax dina ko dindi ci élection législative yi est-ce que dina ko indi dina ko dindi en 2024 lépp mi ngi aju ci résultat yi muy am ci élection locale yi ak élection législative yi gis nga ñaari élection yi résultat yi ci Macky Sall di am moo lay xamal fi Macky Sall jëm ëllëg ci wàllu même parrainage bi parce que bàyyiwu ko da koo da koo fekkee ni rek da koo xaw a tege ni ne parce que bii yoon li ko arrangé mooy candidat yi bari élection député yeeg gox-goxaan yeeg yooyu moom il y luk des yu bari ont été parce que parce que raw gaddu gi dafa am solo waye élection présidentielle mom beugul candidat yu bari kenn ko ci kenn ko ci parrainage bi yoon ñëpp dañu déposé kenn ci parrainage te pourtant élection yi mu mujj dañoo parrainé won lu tax bii parrainé wuñu lu tax Macky parrainé wuñu parce que arranger wu ko te kenn du ci wax kenn du ci wax kon ma paré ci élection yi wax né loolu moy li ma ci wax dina ci ñëwaat ay live live live avant la campagne pendant la campagne dinaa je ferai campagne à ma manière de le partager avec na dugg fu rek mais ragal naa ne ñu bari sax seen campagne du gën a efficace campagne dinaa campagne campagne bu efficace à travers les réseaux ngeen dagg ko def ko ci WhatsApp yi dugg ko mu dugg ci gox-goxaat groupe famille yeeg village yeeg na je ferai une campagne à ma manière wala fal ko ba mu leer nañ dugg ci bopp nit ñi incha allah bu ma fi yàlla bàyyee. ñaareelu poñ bi mooy le dossier des 94 milliards yéen ñi may déglu tamit. yàgg dégg ngeen samay live ma live naa ci ñaar ñett 94 milliards wax naa ko lu bari defal naa leen historique gu foncier bi nga xam ne moom la la famille Mbengue moom muy 258 hectares yoo xam ne waxoon naa ko fi ci live pour ñi may déglu pour ma bañ ci jaaraat monsieur Mbengue moo ko moomoon soxla woon xaalis am lu mu ci tey la Djily Mbaye à l'époque Djily Mbaye dund Djily Mbaye lebal ko ci 50 xuma 100 millions mu jël ci suuf sa am nu mu ko tey la bam ko ko tey la dem ba état bëgg suuf pour def ay HLM foofa ci àll booba ñu xool ko Abdou juuf Diouf négocier ko direct ak Djily Mbaye ñu dugal ci ko ñuy wax Dabi Diagne Dabi Diagne dee na moo nekkoon meeru Louga Abdou Diouf dëkk Louga Djily mbay dëkk Louga mu nekk affaire njàmbur njàmbur ñu géré ko au sommet de l'État def transaction yi ñu jël ay suuf ci biir Almadies wala boog ci biir fan résidence yu état moom jox ko Djily Mbaye Elle ko ci 600 millions à l'époque Djily Mbaye jël ci suuf soosu nga xam dañ ko ko tayle won momu ko dañ ko ko tayle famille mbeng da ko ko tayle won mu lebal ko ci xaalis mu jël suuf soosu jox état ñu exproprié famille mbeng une partie à l'époque 1978 1979 lool lool déjà tégul ci yoon motax dossier bi bu tay dem nañu ba fi mbax la doon benn jeex na dossier bi amatul lu ñu wax tribunal première instance àtte ñu dem ñu dem appel ñu atté ñu dem euh, euh, euh, fële ñu dem cour suprême la première chambre civile attewaat amatul lu ñu ciy wax dossier bi c'est clos mooy lan li ñu ci jotoon def depuis jiiri mbay ba léegi lépp dara ko ci nañ jël suuf si en deux entièreté 258 hectares yëpp delloo ko famille Mbengue bi ñoom ñoo ko moom te loolu kat nañ ko def ci ni mu gën a gaawee te bis bu nekk bu ci yeexte amee bis bu nekk impôt bu domaine bu muy état bi nekk Tëngéej yoon daan na ko bés mu nekk muy fay 100000 francs ba keroog muy jëmmal li tribunal bi décidé moy lan suuf si na mu bindoo woon na mu tolloon ak nañ ko mëddee woon yëpp nañ ko jël delloo ko seeni borom muy la famille Mbengue bii nga xam ne ñoom ñoom suuf si ba Ousmane Sonko tàbbi kon lañ doon wax yëpp yi Cheikh Yérim Seck gis naa mu génn ma jàmbal jaañ bind muut baan kenn ku nekk di wax ñoom ñu ñëpp lañ doon wax ñëpp tek ko ci balance bi Ousmane Sonko summi dàllam tek ko ci beneen côté balance bi balance bi dafa ñëw ci ci dàll Ousmane Sonko dàll dàll Ousmane Sonko bi ñu ko tegee ci balance bi jël ñoom ñëpp teg leen ci balance dàll Ousmane Sonko dafa dafa wàcc moo leen ëpp doole ndax dàll woo dàllu dëgg la dëgg rek mooy mujj tey ba ñu demee ba ci tribunal ba lépp tegu ci yoon ba ñu am ay juge yu dëggu àtte ci dëgg selon lay fee nga xam ne kenn mënu ko dindi dañoo jox famille bi dëgg jox Ousmane Sonko dëgg lañ doon fen ñoom ñëpp tàbbi na géej fen baaxut tappale baaxut responsabilité ji li mbay ci la bokk dégg naa da ngay def kettaa yi xaw ma lan pour defaraat jumaa ji ñu suul julli gis naa doom ji maam Cheikh Mbay génn ñuy wane ay vidéo naan dañuy def ay xaw ma lan benn lici bu ñu ubbi pour nit ñi yelwaat yow julli mbay di minti milliardaire dañ ko àndrang muy joxe xaalis moom julli mbay dañ ko àndrang ma nga ci bar sàq xaalis moo xam xaw ma waaye li ma mën a seede mooy suusu jàmbur si yi nga xam ne da ko borom da ko lebal xaalis mu lebal ko ko borom tay la ko suuf si mu jël suuf sa jox ko état état jox ko ci 600 millions moom Djily Mbaye ak ay terrain biir Ndakaaru au nom de société bu Djily Mbaye ubbi woon mu tudde SAIM Indépendance SAIM Indépendance mooy société immobilière SAI bi Djily Mbaye ubbi woon muy gérer le patrimoine immobilier de Djily Mbaye à Dakar ay immeuble yoo xam ne Djily Mbaye ko moom yu mu ko luyee ay soci ay ay ay immeuble xam ne yooyu mook Abdou Diouf ak Faysal ñoo xamoon ne roi Faysal suñu la loolu duma ko dugg waaye li am solo mooy nga xam ne tey Djily Mbaye ma nga ca barsàq monsieur Mbeng ma nga ca barsàq yàlla moom yàlla moom du du dee ñu dossier yaa nga fa ak malaaka lépp la ñuy àtte waaye dossier bii duñu ko àtte te responsabilité Abdou Diouf nekku ci responsabilité Djily Mbaye Abdou Diouf am na ci responsabilité en tant que chef de l'État à l'époque David Diagne ma nga barsàq am na ci responsabilité Djily Mbaye am na ci responsabilité ndax alalu jàmbur na jël tey la ko encaissé ci xaalis te tegul ci yoon yàlla na ko ko laaj ëllëg ki moom alal ji ma nga barsàq ay doomam ñi ngi fi ak ay sëtam yu ko waroon a donn mu ñuy alalu jirim lu ma 30 ans leen dawloo Ablaye Wade am na ci responsabilité yone rew mi lu mat 12 ans ta attewuñ ko Mamour Diallo bi muy yëkkati dossier bi Ablaye Wade fi nek ñom bi ci ciy doxal ko Amadou Ba Amadou Ba mii bobu mo nekk directeur général des impôts Amadou Ba dossier bi dafa tombé ci Macky Sall mais dossier 94 milliards ci Abdou Diouf la ba mu dem Ablaye Wade ba mu dem ci nguur Ablaye Wade ñom Mamour Diallo ki Amadou Ba ñii ci lañ commencé def mbuxum mi mbuxum mi Abdou Diouf ko tàmbalee ci nguur Ablaye Wade ñëw ñu ko na di mbuxum Macky Sall ñëw ñu ko na di mbuxum ci nguur Macky Sall nak ci le dossier bi fin tribunal tay àtte la chambre civile de la cour suprême joxe na dernier verdict mooy suuf nañ ko dajalewaat ba mu nekk képp comme nam tolloon ca 1978 ca njëlbéen ko delloo ko seeni borom Ousmane Sonko amul dëgg ci li li jot a génn nag accaissement yeeg faux usage de faux yeeg signature Amadou Ba yeeg fen yi ci am ak tëtëtëtët na Ousmane Sonko daal xam naa daa mbindeefu yàlla la mu doy waar Ousmane Sonko la ma ci waxoon sama laay rek moytu leen ko jiwaay moytu leen ko moytu leen jiwaay moytu leen jiw waay am na loo xam ne bëgguma faa dugg ci wàllu baatin waaye moytu leen jiw waay moytu leen jiw waay moytu leen sonko wallahi ku ko moytu la nga xam sa yoon dëgg moo ne laax bu tàng fi mu toll nii kenn du ko jiiroo ku ko jiiroo wu cax waaw le doyen des du ko jiiroo kuñ ci na kaay toog ci siis bi ngeen leen baax na sëkk loolu baatin la kaay jël dossier Adji Sarr bi ngeen leen yii doy na sëkk dañ ko daan xëccoo de doyen des juges dañ ko daan xëccoo di reyante di njabarante lu ne pour nekk doyen des juges waye tay doyen de juges Sénégal kenn bëggutu ko ci ne kaay mën na yii sëñ bi euh, ma dem dalal te ñew kenn doyen de juges kenn du ko laal ndax lan dossier Adji sar tapale baaxul dossier Adji sar mu dina nek laax bagaanu laax bu tang jëpp bagaanu laax kenn du ko jiiróo am mbatto lañ koy ràccee ba mu sedd ñukoy koy ñi ci soog a ci fay bagaanu laax bu ñu soog yak de dee su ko jiiróo ku ko jiiróo de nga wicca sa loxo Ousmane Sonko bagaanu laax la. bu ñuy soog a yàq ci aw kaw diir bees koy ràcc akub battu ba mu sedd ñu cafaay ko soog koy mën a jëfandikoo waaye yéen dañoo yàq laax bi rek ngeen bëgg koo jiiroo mu tàng jëpp ngeen wiccaxaat ko te laax bi ba léegi dafa tàng ku ko laal wiccaxu sama mbokki kaw yi laay wax ñoom xam nañ luy bagaanub laax xam nañ luy battu ak cafaay ñoom xam nañ loolu yéen booy taw ni nag leen ca xamu leen cafaay xamu leen battu xamu leen bagaanub laax waaye ñoom xam nañ man kajoor kajoor piir la ci xolu réew mi wax man réew mi man bu yàqu ma yàqu ndax man maay Sénégal man moo tax dama ciy sonn duma ah. man du ma ay wàdd ay wàdd du ma ay soo wàdd nekk ay Mahmoud Saleh de ñooñu ña nga jóge ca Liban man jógewuma Liban man Égypte laa jóge samay maam ñëw Sénégal man su may samay sama cosaan Égypte la nekk Sénégal et nekk wolof dëkk ci digg xol réew mi ku fi baax ci réew mi rek maa ngi yow bokk. lu fi bon rek bokkuma ak yow moo tax réew mi dama ci sonn ba keroog mooy dugg ci bàmmeel ku mu neex baax na ku mu neex sama yónni ndax nit du am li yàlla man yàlla du ma sédd am Sénégal ma nekk ci digg Sénégal ke bu ñu xal maa nga bu xar maa nga ca ba may yemba yemba rek naan bu ma waxee ñu mel maa euh, kee lii ko wax dëgg la waaye ko wax ci kaw rek si fi naafeq yooyu man ñaan ma samay wax ñi ma lëg ma dee wala lëg ngeen dee yéen ñëpp xalaatuma ko moytu leen Ousmane Sonko 94 milliards kon wax jooju moom tëdd na mut baana ma jambal Diagne ki mamou Diallo ki Me El Hadji Diouf ki ñoom ñëpp génn ratatatatatatatat yu dul jeex nañ ko bàyyi yoon na yoon àtte dossier Adji sall waaye léegi 94 milliards yi yoon àtte wu ko anañ ñoom ana ana Cheikh Yérim Seck anañu Cheikh Yérim sek il est très pertinent il est bien je l'aime bien je le suis bien mais il a la la science infuse il est prétentieux il est condescendant dembu maa ngi dégg muy wax ci seen jàkkaarloo boobu mais boo ko dégloo ni muy waxee des fois sax les il frustre les gens maa ngi dégg bu ko mais mais Cheikh Yérim bàyyi ñu waay ñun tamit il faut ñu wax suñu xalaat mënoo fi nekk maa ngi dégg keneen ki aussi borom koppati bi xam dudedi Charles ñoom tamit di dal ci kawam parce que Cheikh Yérim quand il est avec eux il leur parle de façon condescendante il pense avoir la science infuse il pense avoir le monopole de la vérité il ne respecte pas les gens, il les coupe, il les corrige comme s'il était un maître parmi ses petits-enfants à qui il, apprend à lire et à écrire. C'est ça, chéri Rimsek. Je lui conseille de, descendre de son piédestal, de, de, de faire profil bas et puis de, respecter un peu aussi ses co-débatteurs des fois. Parce qu'il euh, il faut qu'il arrête de montrer aux gens qu'il est dans le secret de Dieu. Il faut qu'il arrête ça. Même si des fois, euh, il est pertinent, il y est, hein, je le reconnais, hein, mais je pense qu'il en fait trop. Voilà pense qu'il en fait trop. Peut-être narcissique, peut-être possible, possible. Je ne vais pas jusque-là, c'est possible. Mais des fois, il faut savoir raison garder. Il faut, voilà, il faut, voilà, il faut savoir raison garder. C'est le conseil que je donne. C'est pas méchant, hein, mais voilà, c'est comme Je l'aime bien, hein. je l'écoute, il est pertinent, il est bien, il est, voilà, il est pondéré, et puis voilà, il n'est pas mal, mais des fois, il en fait trop. Cher Yerim sec donc kon gis ngeen dossier 94 milliards yi moom Ousmane Sonko am na ci ndam takkal nañ ko si Mercalex Atlas Mokoli, Mokola, moko la ko laa ah on me signale que Ousmane Sonko est en direct là j'avais oublié qu'il était à Ziguinchor voilà il est à Ziguinchor en ce moment qu'il fasse attention parce qu'ils ont tenté quand même de de monter un dossier avant le dossier Adji il y a un autre dossier qui a été tenté il y a un autre dossier qui a été tenté avec une fille que je connais. J'ai sa photo, j'ai son nom, j'ai tout. Cette fille a été dépêchée à Ziguinchor. date yi yëpp xam ko pour nous dugg ci hôtel bi pour mën a am lu mu ak Ousmane Sonko ñu mën ko Danel. waaye Ousmane Sonko yàlla moo ko aar hmm. Ousmane Sonko du ko ñu Danel, ci yooyu yàlla moo ko aar waaw ndaw soosu sant Balde tudd bon pour l'instant je garde son son son prénom mais le moment venu daan ci wax ci wax pour xamal leen c'est pas la première fois que ndaw soosu de ñu qui ko def loolu te ki ko moom dafay jabaram dafay liggéey ci ay salon dafa ubbi ay salon ne day encaisser dix millions par jour ci ay salon te loolu ñuy encaisser ci salon bi dafa am système de trafic trafic bu lu ngi tane ci réew mi lu bari lu bon loo xam ne dañ ko trafiquer di ko recycler mu nekk un système de recyclage de l'argent sale mhm. am na loo xam naa leen ko wax tey xam ko en exclusivité gis nga drogue bi ñuy séddale ci réew mi les faux billets yi ñu wax. wali Seck ak drogue beeg yooyu yëpp lépp loo xam ne yoon da ko télé ci réew mi té te ñu koy circuler té mi ngi circuler à 100 à l'heure te loolu mooy milliards yi ngeen gis ci réew yi muy tourner té xam leen fu mu ñu tabax ak yëpp c'est de l'argent sale ñi koy recycler dañ koy dugal ci ay restaurant diko ko ci ay salon de beauté diko ko dugal fu pour recycler xaliss bi def ko bu nek xaliss propre nek ci banque ñu man ko utiliser sans que fisc bi wala octroi wala yoy di len top topp Ngouda Fall j'ai commandé son livre là sur la le le le le le la corruption. Je l'ai commandé avant-hier, je pense que je vais l'avoir aujourd'hui. Je vais le lire, Ngouda, Ce livre-là. Quand j'ai vu la pub avant-hier, il y a quelqu'un qui a fait un poste. je ne savais pas qu'il avait écrit Ngouda. Il a fait un livre, je pense, au mois d'octobre ou septembre passé, là, euh, de cette année. J'ai commandé ça, euh, je vais l'avoir, je vais le lire et je vous ferai le résumé de, ce qu'il a dit parce qu'il était à l'octrice. C'est un Niger en retrait, je pense, il en sait beaucoup. Donc, je vais lire j'attends le livre Et, euh, ñoom ñooñee ak Aly Ngouille Ndiaye réseau boobu détrafiquant boobu ñoom ñooñee ak milliards yi ñuy drainer ñoom ñëpp ñoom ñoo njëkk a bëggoon a piège Ousmane xam waxoon naa fi daan yële ne leen trafiquant de drogue yi nekk ci réew mi ñoom ñooy piège Ousmane Sonko avant Mamour Diallo ñoom la ñoom ñoo ko njëkk a testé mu mooy ñoom Mamour Diallo soogu ñoom dañoo am benn système de distribution de la drogue dans ce pays parce que gis nga cag-cag cag-cag man xaw moon après lañ dama cag-cag yi ngeen gis ni ñoom ñoo installé cag-cag yi gis nga cag-cag yi jakarta yi moto yi ñoom ñoo ko installé ñoom ci cag-cag yi la drogue bi di jaar di dugg ci biir boutique libaane yi di dugg ci libaane yi di dugg ci seen hôpital seen euh, clinique yi clinique libaane yi clinique yi docteur yi libaane yi seen clinique yi du du faj moo leen may xaalis de dafa am trafic drogue bu nekk ci suuf ma xamal leen ko bis na ko tey cag-cag yi ñoo koy transporté cag yi ñoom nag kenn leen jàpp ay laissez-passer lañ am foo leen téye gis nga ñoom cag-cag yi rek ñi jaay drogue bi koo ci téye am na koo xam ne Aly Ngouille Ndiaye utal na ko laissez-passer day dugg ci prison yi dugg ci kaso yi dugg yëpp bu ñu la téyee mooy dugg ba ci biir kaso bi génne la te kooku mooy Doro Gueye PDG Doro Gueye boobu laissez-passer la du dugg ci kaso yi da lay génne fu ñu la téyee ci système bi ñi bokk ci seen mafia bi kenn du leen tëj bu ñu la téyee tamit dañ lay génne waat li may wax nag colonel Keita moom war na koo xam colonel Keita bi ñu fi dàqoon lu tax ñu dàq ko colonel Keita colonel Keita li may wax yaa ma gën a xam le commissaire de police Keita commissaire de police Keita moom xam na li may wax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen te li may wax ni français yi xam nañu tubaab yi France seen système de renseignement yi xam nañu lépp dañu ne tekk rek di xaar bis américains yi seen système de renseignement yi xam nañ lépp li may wax ni ñoom ñoo gën a xam fuuf moo tax dégg naa ñu ngi wut pexe ci man waaye bis bu ngeen juumee ba ne ma ciir da ngeen xam ne lépp dëgg la <laughs> bis bu ngeen juwe ba juk ci man da ngeen xam ne lépp dëgg la li seen intérêt moy ngeen tek def profil ba parce que lima wara wax ta xam ko ci yéen te waxaguma ko mo ëpp lima xam mais bu ngeen ne tek rek mën tek rek may lañu jam rek Macky sal na dem ngeen dem ak seen milliard jël leen kenn top leen top ñu leen dara dem leen waye abal leen ñu réew lañu bëgg ta wax ñun Sénégal dong la ñuy laaj xeexuñu xuloowuñu topp ñu leen li ngeen ci mëna am jël leen ko ngeen abal ñu tank def leen lool du ngeen am jam top ñu leen nak jël leen seen milliard yi doroog ak seen yépp ngeen yébal amul problème ñu kenn tak ñu kenn waaye waaye réew mi moom jox leen ñu ko dañ ko bëgg tabax ko ngir askan yu dund parce que ndóol gi ak coono gi ak mag ñi dee hôpitaux yi mënatuñ ko muñ li képp lañu wax ngir na dal ba kañ ba kañ kon mbokk yi gis naa léegi Ousmane Sonko def direct naa ko dagg yamale ko fii euh, bu ma def ay divers mais comme euh, Sonko moom bu wootee dañuy bàyyi bu ñuy wax ba Sonko di wax moom dañuy dagg lépp. dem déglu jikko ndax moom macha allah ay waxam ëpp nay wute kon na ñëpp dem jàppale jikko ca ndaje moom mu am tey Casamance mu ndaje mu am solo moo xam ne nañ ko nañ ci bàyyi xel ndax ñoom ba léegi ñu ngi ci ay tànkam bàyyiwuñ ci wàllu sécurité ci wàllu yu baree bari ak ndëgg sarax ñu ngi koy tegal waaye nag lu ko yàlla aar aar aar aar ci nit ñi la ko jàllale ñun ñoo war a taxaw temm préparer ko garder sa sécurité mobiliser yéen waa diaspora bi waxoon naa ko fi ci live élection yi jëf si na ñen ñi nañu def live ci seen gox ko yi ci seen groupe village yi commune yi whatsapp yi waye ñen ñi nañu mobiliser ay moyens campagne bi dafa laaj ay moyens kenn ku ci nek gox ba nga dëkk ñen fa tabbu ko coalition yeewu askan yi yeen diaspora bi yeen wara dajal a dajale yónnee leen xaalis ñu campagne légati kese naxu li béy ah kan ci legati kessé na naxu li béy Macky Sall am ay légat yu mu def ay tour ay tour ndaje yo xamna ay légat lañu ko les calebasses légat yoy mom légat yu kese day nax mom Macky Sall day nax mom day nax béy waaye ñun suñu leget yi du ndax bay legeti kes naxtu bi yéen diaspora bi seen contribution ci locale yi comme yéen bokku leen voté wu leen seen contribution mooy def ay ma koy defee dugal ko ci seen kër yi seen dëkk yi ak seen nit ñi waaye dajale kenn ku ci nekk kenn commune bu nekk ngeen fexe ba yónnee fa un million mille cinq cent euros commune bu nekk ngeen dajale ko yónnee ko comité ba nga xam ne mooy comité ba nga xam ne moo yore yoon yeewi askan wi ca commune ba ngeen yónnee leen un million wala cinq cent mille jàppale leen ko ñu mën a campagne c'est important li may wax waye tok rek tàccu ak yàlla baax nag sunko macha allah ak yaakaar ne fi ngay tok nga tok lepp dina fek fekk déedéet ay kom moy campagne jappale len len ci ay moy makki dina genn ay milliards drogue bi may wax ni ak mafia gis ngeen li ngeen deg may wax yëpp ay milliards lañu ñoree ci sen kër yi toog ba Ngom deg ngeen 25 milliards far ba Ngom fo lolu moy divers mom la ci bëggoon genn sank waye waaye comme Sonko ngi wax ko ma ndax ma àggale wala ma bay far ba Ngom seen kër yi ay milliards dafa nekk moo tax suñu nee bële di campagne pënd bi lañ leen di dóor yéen nag au lieu ngeen génn 500000 500000 bariwul kenn ku ci nekk fa nga dëkk nga jox ko ña fa nekk di campagne ci yeewi a ñu a ñuy génn tas ko jox leen ñoom dañuy jaay drogue dañuy def faux dañuy def trafiquant de prostitution ñoom lépp la def façon xaalis yépp la ñuy récupérer parce que am nañ ku nekk ci kaw ku leen di garantir koo xam ne mooy Macky Sall ak le juge Samba Sall ak ak ak le le ministre de la justice euh, kii Sall ak le procureur dañ leen a garantir ñoom duñ dugg kaso lépp la ñuy def duñ dugg kaso. ay milliards lañ yor ñun nag amuñu xaalis drogue waye amna ñu 500 yo xam ne mën nañu ma yóbbu ko sama commune yow mi dekk Mbour nga yóbbu ko commune Mbour ci dekk keur Samba gay yóbbu kër Samba gay commune ko Samba gay yeen ñëpp yeen nga ci àll bi ngeen dajale même ñi nekk Dakar ngeen dajale patriote du wax rek. patriote jëf la aussi bu ñu waree tànn yéen patriotiquement da ngeen war a kenn ku ne la mu am ngeen dajale ko yóbbu ko ci seen dëkk xool ka fay nekk ci kujje politique nga xam ne moo nar a dafa dëkk ba ngeen yóbbu ko jàppale ko mu campagne te mooy yeewi askan wi Farba Ngom yi 25 milliards la ñu wax ne moom lañu fekk këram ak ay immeuble ëpp na ko Farba Ngom li mu yor ci ay milliards mat na 100 milliards waxoon naa leen fii ci live na ko génn woon parce que lii lañ jotee la mooy ay milliards la ko lekk ab avant Farba Ngom ku ñuy wax Abdoulaye Sylla moo nekkoon sen prêtre no comme niñ ñu def Elimane Lam Abdoulaye sila ci jitu mu yor société bu mag ñu ko jox ay marché milliard marché yépp mu ko raaf la Abdoulaye Sylla il est de de Diourbel promotionnaire Marième Faye ñu jox ko prêtre no jox ko ay milliards yi milliards yi milliards mu jël xaalis yépp tok japp jamm ñu laaj ko ci mu taxaw lank dafa xulo ñoom fi ndol toll nii ñu ko laal parce que sacc du yuuxu sacc ñu ngi koy surveiller nak ñu jël Elimane Lam taf jël ki nga xamne moy farbangom mom tam ñu yàgg ko jox ay marché farbangom jaay souf mo nek liggéeyam te Macky Sall moko duggal ci jaay souf bi Macky Sall nekkee premier ministre fekk fuñu morcelé ci Ndakaaru Sénégal Macky Sall amna fa souf dañ koy jox wal dafa am quota direct COCD euh, euh, CCOD boobu ñuy wax nga xamna ñoy ñooy réunion comité bi nga xamna ñepp dañ ci nekk ñu bu ñu dagg suuf ak cadastre ak ñoom ñëpp ñoom Macky Sall premier ministre da ci am quota dañ ko daan jox walam buñ ko ko masaan jox Farba Ngom mi la ko jox mo koy jaayal Macky bi ni falu président 2012 dafa falu ba noppi jaay lu mat vingt terrain yoo xam ne ni ñu ko jaayee foofu ci zone de captage fi mbay Gueye nekk EMG mbay Gueye bi ngay dégg EMG Mbaye Gueye EMG boobu moom ak Tayrou Sarr ñoo bokk lépp mook Tayrou Sarr Mbaye Gueye na ci ci ki gën a jege Tayrou Sarr Tayrou Tayrou Tayrou Ndiaye directeur du cadastre du temps d'Abdoulaye Wade te Macky Sall jàppoon ko fi tëj Tayrou Ndiaye boobu Taybou Ndiaye ak Mbaye Gueye dañoo nekkoon comme mburoog soow bi ñuy bi ñuy aménager zone de captage boobu foofu ndox la woon ak àll dañ ko ñoom ñoo ko toj maasale ko mbéy géey moo ko maasale ak ay engins ut ko ñu toj la ca nekk ci ay mbire ci ay mbuxum du ma ko wax mbéy géey moom xam na man xam na su ma dégloo tey bu njaay bu ma dégloo xam na man xam na. Macky Sall bi mu faloo 2012 Ousmane Sonko defal na ko benn redressement fiscal loolu xanaa yëg ngeen ko automatiquement jox ko. benn agent des impôts ne ko demal ci palais bi nga jox ko Macky pour mu fay ay impôts parce que jaay na ay terrain ci biir zone de yoo xam ne fayu ci impôt daf ci am plus value yoo xam ne impôt daf ciy daf ciy teg taxe ko ñu dàq euh, ki Ousmane Sonko yónnee woon kooku tey mooy chauffeur Ousmane Sonko chauffeur Ousmane Sonko woon pour yóbbu ko ci wàll dañu ko dàq dàq Ousmane Sonko dàq kooku tey mooy chauffeur Ousmane Sonko. téere yooyu Macky Sall jaay ci essai yi boobu nga xam ne moom la def ci déclaration de patrimoine waaye waxul la ca nekk ak lam jaay Farba Ngom mii moo ko daan jaayal ay suuf yu bari Farba foofu la jàngee jaay suuf lu Macky Sall mas a am ci suuf Farba ko jaay nag 2012 nag Farba yaatal nag fu ñu dagg suuf ci Sénégal Farba am fa suuf di jaay rek Macky Sall da koy jox mu jaay muy enquête milliards yooyu nag moom lañu seq mais moo tax mais Macky mënu ko wax ci kaw mooy la la daloon Ablaye Wade rek fonds politique yi fonds taïwanais yi chinois muy ay milliards ñu dénk ko Idrissa Seck mu toog ci Abdoulaye Wade bëgg ko laaj mu ne ko bu ko mu ne ko ko yuuxu la boo xam xam ne du risque du ko ci du ko yuuxoo fenn daal di koy jaarale nag ci marché de Thiès chantier de Thiès fa la ko la yoo xam ne normalement ci trésor public lañ ko woon dugal muy xaalis Sénégal ñu sàcc ko ñoom ñaar ñëpp loolu moo dal Macky Sall ak Farba Ngom enquête yi ñuy wax OFNAC Macky Sall ci boppam moo nekk ci ginnaaw moo boucler enquête bi jox waa OFNAC ci ginnaaw mais feeñu dal ci kaw Farba Ngom fi yu ko Farba Ngom lekk bañ ko ko jox moo na ko dàq ci palais ma xamal leen ko tey moo tax temps yële bi Macky trois cent mille euros woo ñu APR foofu xumbaay boobu ngeen gis yëpp Farba Ngom moo ko financé xam ngeen pour lan la pour jéem a jubóog Macky Sall pour neexal ko avant loolu génn na dootuma nangu ku taxaw di dal ci kaw président Macky Sall dootuñu ko may kenn léegi ku si waxaati Macky Sall yooyu yëpp ba ko Macky dàqee ci palais bi lay soog a génn def loolu mootu ko dàq parce que ay ñoo dox seen diggante mu toog ci moo tax ñu montel ko dossier boobu xam nga ne Farba Ngom suñ demee ba of naag di libbal ci ay mbiram ba leeral point net daan jeen xaritu Macky Sall nga xam ne léegi moo remplacé Yakham Mbaye ba Yakham moom it di yuuxu Dame Dieng léegi moom mooy dugg ci palais beeg génn moom Seydou sax mi ngi xaw a déranger sax euh, Madiambal Diagne parce que Madiambal Diagne moom la Macky jël Dame Dieng boobu bu ñu demee ba ñuy publier ay affaire yu Farba Ngom nga xam ne y a quelque chose qui se passe am na lu xew ci diggante Farba Ngom ak Macky Sall te Farba dafa puissant amoon doole directeur général de la police Farba Ngom moo ak yu bare bare ay ministre yo xamne farba mo ba moo leen Macky Sall léegi daf ko rocci sànni ci àll bi dàq ci biti pour lan lay Idrissa Seck waxoon nag bu ñuy ànd di sacc dañuy déggoo lol nek ay jambar waye buñu ñu baraw nak ba dem ba ci àll ba ba weñ nawul dara kenn suñ ñu jall lañ sàcc nak ne nañ séddoo ne na ca séddoo ga nag foofu la ñu reyantee dal ablay wad ak Idrissa sek loolu mo dal mak Sall Farba Ngom ni ma xamal leen ko bis naka tay na ci ñewat ak yenn yeneen a yenn mooy la ma gis ni li dal yépp ci Sénégal musiba gif dal yeb ablay wad ak njabotam la ablay wad ak njabotam ñoo um senegal moo tax Sénégal du dem gis nga foo beuti rek njabot ablay wad Idrissa sek ablay wad Macky Sall Karim wad pap Diop Bougane Gueye Dany ngop ñen ñep njabot ak ablay wad ñi li moy nattu senegal li moy senegal di len top sama live lumay may wax ngeen koy tey parce que dañuy dañuy demat ci jamono ma wat ci indi wat ko wax len li waxon nako ci li leg li parce que tout est lié tout tient samay wax de len koy top di ko xel di ko archiver parce que <laughs> jamono mooy ñew ba lama waxon am lu ngeen ci jot fi la ci def ngeen dem ba may ñamana am benen bu bu ñewat ngeen mën ko bolé yépp mu leer ci seen bop way man kuy fàtte mëno ma top kuy fàtte samay wax mëno ci jariñ kon euh, dama ko guddal ndax comme ni ma ko waxee président ma ngay wax ci Ziguinchor nañ ko dem teewlu ji mais Farba Ngom moom loolu rek mooy coow dina delloo Macky Sall xaalisam ci nii wala OFNAC dina ko leeral génne lépp ñu yóbbu ko mu nekk ku ñuy njëkk a ci nguuru Macky Sall ci affaire njublang moom far ba ngoom moom moom la ñuy nar a njëkk a atte tax ma ngay taxaw di lay naan man gérer ma société musuma nekk ministre moom néewul na li ñu ko jiiñ amul de waaye dafa bëgg a wax nit ñi ne moom waruñu koo topp ndax yo yorewul budget état sàcc bu sàccee tamit sàccul budget état <laughs> Eh, Macky Sall Macky Sall Macky Sénégal yitteelu ko faluwul pour tabax indi ay ndox faluwul pour nit ñi am xëy faluwul pour faj nit ñi yi loolu yitteelu ko amul xam-xam bi musu tër dox ci loolu Macky dafa falu pour ut alal moo ko yitteel ci réew mi Macky faluwul pour toppatoo benn Sénégal yoonam nekku ci ngeen dee ñëpp yoonam nekku ci Macky dafa falu pour dajale alal moom ak njabootam ak képp ko ànd ak moom di ko jàppale ci ut alal Macky loolu moo yitteem subaak ngoon ngeen xam ko loolu sëñ Mountakha war na koo xam mbay si maasu xam nañ ñoom gën a xam foofu ñoom xam nañ ñoom ñi ko ñaanal ñoom ñi ko ñaanal xam nañ ne Macky ni yitte mooy alal ñoom gën a xam ah pro commencé gul su fekkee pro commencé gul kon ñu continuer bi ci des mooy Farba moom ak Abdoulaye Daouda Diallo jubóowuñu ñu xëccoo xëccoo yu mag Matam concurrence te Macky Sall Abdoulaye du jàll mooy poulain bu demee ba mënta taxaw ba mënta dem Abdoulaye Daouda Diallo lay jéem a taxawal moo tax mu dàq Amadou Ba teg fa Abdoulaye Daouda Diallo jox ko finance Abdoulaye Daouda Diallo boobu moom moom la Macky Sall yi déglu dégg boo xoolee tànn nañu barki démb Abdoulaye Diouf Sarr ne mooy jiite Ndakaaru jël Amadou Ba ne ko yaay coordonné la coalition Benno Bokk Yaakaar ci Sénégal yépp pendant campagne électorale bi démb maa ngi dégg jàkkaarloo ci guddi gi na ngay wax di wax di wax waaye du ñu dem ci sujet bi au fond wala boo xëy na xamuñu mais euh, Abdoulaye Diouf Sarr mom la Macky Sall jiital à Dakar Amadou Ba moom ki moy ki nga xamne mom la Macky Sall jiital pour que mu financer campagne par force parce que Amadou Ba est un multimilliardaire Amadou Ba bi moo dàq satch sàcc Macky Sall lu mën a mën Amadou Ba ko dàq satch Amadou Ba bi ngeen gis nii mu ne parcelle deuk dëkk nekkoon directeur général des impôts de domaines Karim Wade faloon ko mu seqoon ak Karim Wade yu baree bari bari ci ay mbuxum Macky Sall falu mu daw ci palais bi fekk Macky Sall tegal ko dossier Karim Wade yëpp collaborer ak Macky Sall comme ni ko Mbaye Guèye EMG defee ak Macky Sall ci kaw Tahibou Ndiaye bi nga xam ne ñoom ñaar benn la ñoo moo sénégalais Ousmane ko dafa teel a moo tax mu dox ci dëgg sénégalais bul séq ak moom lenn senegale yépp a ci yem alal lu ngeen mënti séq bu ëllëgee boo amatul pouvoir mu dem ànd ak pouvoir jaay la ngeen séqoon yéen ñëpp ngir mën a toog moom dañoo mën a wor ay warkat lañ moo tax looy séq ñoom na leer te nekk dëgg waaye tey euh, Mbaye Gueye EMG dafa war tey bu njaay jël alalu Tahibou bu njaay ko am na benn këram bu nekk Paris fii boo xam ne dégg naa jabaram jabaru mbay Guèye mi ngi fii Paris signalé nañ ma ko à Paris jabaru Mbaye lu ko jëlee Sénégal nag ba ñu indi ko Paris laax ko fi loolu leneen la dinaa ci ñëw maa ngi ciy enquête ba pare gu ma jabaru Mbaye Guèye EMG la ko jëlee Sénégal ba ñu indi ko Paris dugg ko ci benn appartement boo xam ne mangi ci enquête ku mom appartement bi ak nakon la ko mbey gay amé appartement bobu kañ lañ ko jënd bi paré ba duggal fa jabaru mbey gay bu MG lan moko jëlé Sénégal ba mënta tok mom Sénégal jabaru mbey gay ba na a tas ak mbey gay lan mo tax mu nar a lool ñu ngi ci enquête mbey gay bobu mo war tay bu njaay ancien directeur du cadastre su wad ba mag sal tëj ko ci bir créé bi ñuy def enquête créé tay bu njaay bu leen ko fat nonu ñuko waré mon tay bu njaay jël ay alalam tiyé ko yépp mbay jee dem ànd ak Macky Sall jaay ci ndaan liggéeyandool démb te mu nekkoon patron muy tey bu njaay di ko gasloo ay suuf di ko maasaloo ay suuf di ko jox ay suuf moom mbay jee moom moo dem jaay lépp nag Amadou Ba ministre bii ngeen xam ne moom lañ def coordinateur benn boo ko yaa camp Amadou Ba noonu la seqoo woon ak Karim moo Karim comme mburoog soow waaye ba Karim daanoo la dem ànd ak Macky Sall jaay ko li mu seqoon ak Karim yëpp moo tax Macky defoon ko ministre des finances moom it dafa sàcc sàcc sàcc sàcc Amadou Ba ni mu riche yéen ku leen ko waxoon da ngeen mënta nekk loolu moo la xam nag moo tax mu def ko coordonnateur coordonnateur bi mu ko def nag mooy xaalis bi génn ko def ko ci wala ma tëj la ci kaso bi tout de dégg maa ngi dégg ñu ne ci yàgg yaakaar ñu naan waaw Amadou Ba de waxul dara kon kontaan na am na lu ko dig ma yërëm sekk nee na nee na Amadou am lu ñu ko dig xëy na après campagne bi mën nañ dégguñu ko dara yërëm yërëm yow da ngaa lépp nga xam ko Amadou Ba Macky Macky da koo da koo woo teg ko teg ay dossier am ne ko campagne bi alal ji nga tiri ala alal jaa ngi nii dossier yaa ngi nii dama la jox nga coordonné ko campagne bi bëgguma fee dégg wax Diouf Sarr mooy candidat bi yow nekkal ci ginnaaw coordonné ko au niveau national xamul tax mu jox ko mu nekk coordonnateur national parce que Amadou Ba moo war a génne ci milliards yi mu sàcc pour financer campagne bi yëpp moo tax ma ne sànq yéen patriotes yi génne leen seen xaalis ci diaspora bi ngeen financer seen gox-goxaat yi ña fa nekk di liggéey ngir opposition bi yeewi askan bi ngeen financer leen parce que Amadou Ba moo nar a génne ay milliards ci xaalis bi mu sàcc def ko ci biir seen campagne Benno Bokk Yaakaar Macky du ci def xaalisam de Amadou Ba koy def par force bu ko deful Macky da koy tëj moo tax mu dénk ko gestion wu campagne bi yëpp defu ko candidat nee na ko yow sa liggéey mooy coordonné fu manque xaalis yónneel del coordonné dama koy taxaw taxaw si boo ko deful nag yaa ngi ci kaso bi maa ngi gis nga say dossiers yi nii sa xaalis yëpp xam naa fi mu ne lii moom mooy li am ci diggante Macky Sall ak Amadou Ba te ñoom waxuñu ko démb ci jàkkaarloo bi nga leen di déglu jàkkaarloo da nga naan façon nit lañ maanaam jàkkaarloo moom xawaare la ñoom dañuy kenn ku nekk wax ba géex teppiku moo tax may fay leen bu leen déglu télé yi parce que ñoom dañ leen di tardel ñoom man su ma leen déglu damay ree rek jàkkaarloo leen déglu damay ree rek waaw ah, damay ree kon Amadou Ba Macky def ko njatt forcé ko par force mu finance campagne bi xam nga loolu fan na ko Macky jàngee ci Abdoulaye Wade la ko jàngee Pape Diop mi ngeen gis Pape pune Pouné Abdoulaye Wade ko tuddoon Pape Diop Pouné de sacrifice pune Pape Diop Abdoulaye Wade ko ko waxoon Pape Diop Pouné bi ngeen gis dafa satcha satcha satcha satcha satcha satcha moom ba kenn mënta xam Abdoulaye Wade ba mu demee ba xam lolu campagne bu ñëw mu ne ko Pape Diop acc Abdoulaye Wade boo ko masaan seete mu ne dama sété Pape Diop Pape Diop ala ji moom Abdoulaye Wade moom <laughs> lu ci boyo mom moom da lay bàyyi nga sàcc rek waye bu campagne ñëw ya koy financer suma amé ko ma ñaan mu dama sété Pape Diop yaay maye yaa joxé lepp mom du ma la bàyyi nga lek ko mom ka da ma jox sa wàll waye nak financé na campagne Macky Sall foofu la ko jàngee noonu la Macky Sall def Amadou Ba na Abdoulaye Wade defoon Pape Diop ci muy financé campagne PDS yëpp sàcc na ba taxaw noonu la Macky Sall def Amadou Ba sàcc na ba taxaw Macky Sall ne ko lépp yaa koy financé par force wala jël ko ba mu kawe képp tiim ko li ko lekk yow képp moom du fi am boo ko jëlee ba mu kawe boo koy lekk il faut que ko ci mos noonu la Abdoulaye Wade daan def Pape Diop Macky Sall noonu la def Amadou Ba est-ce que leer na seen bopp. li moy li am du ngeen ko dégg ci benn li ma leen wax fii du ngeen dem du ngeen jàpp benn télé ba dégg ko fa du ngeen dem ci benn émission ba dégg ko fa sama benn live moo man seen émission yi Sénégal yëpp parce que ay naafeq lañu dañuy wër-wërloo boo xaw a rëccee sax ci seen émission bi wax nar a wax dëgg ñu ne non loolu bu ko wax ah non bul tudd tur ah ah non non non lii conflit d'intérêt ah alors lii maanaam raggante mbagg la laa ji ab képp lañ fi nekk daañu dee taxaw ci kanam yàlla torox ñun ñëpp dëgguwuñu waaye wallaahi dëgg bàjjo alaaji Abdul Aziz da ba nee na raggante mbagg dong lañ fi nekk waaye wallaahi wax nga dëgg nee na daañu dee ëllëg taxaw ci kanam yàlla dëgguwuñu li rek moo am Sénégal sama bàjjo ba si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xale ko àjjana Sénégal joy nañ la noppé guñ ci di la jooy ba kenn du moom alaaji Abdou kenn du mom du kenn rek ndeysaan bëgg réew mi rek nek patriote pire man bëgguma ko parce que sëriñ la dama ko bëgg parce que c'est un patriote ndeysaan daan taxaw di yëkëti kaddom di wax ñu mëna war mi waxal muy wax ak ñoom mu jubante muy amul président amul chef boko jox amul top bi mi dee bayu fu di franc mali wute ñi fi dee bayu fi ay milliards ak ay souf ñu séddoo mom da bayu fu dara alaaji Abdou bi mu dé ay doom amuñu luñu ko miraase bàyyi fu lu ñuy miraas qaala allahu qaala rasulullah bu masaana wax bu juum ba ne alaaji malik na sax aw ma droit sax di jël exemple ci alaaji malik lu tax alaaji malik mooy kan aw ma sax sañ-sañ ngeen jëggal ma mbokk yi waaye aw ma sañ-sañu sax di jël misaal ci alaaji malik ndax jur gi mu ko jur alaaji malik lu lu mu fi def lu mu wax dara yàlla rek moo fi nekk yàlla mooy def yàlla mooy jël qaala allahu qaala rasulullah ca yàlla laa wala tibbi daal di dina cës saaru alxuraan wa di sàn jàng ko ci jàng yu gën a rafet tekki ko ci tekkin yu gën a mucc ayib ngir lañ njariñu askan wi bàjj bi yàlla ñu ko yàlla fayal ba mu demee lañu tumuraanke ñun ñëpp léegi ay sëriñu soos soosaate fi nekk ki ay sëriñu malete ki xaalis ki sëriñu yi kenn xamul yu toji kër ki yu kenn xamul ak tëkkoo ki ay sànni ci sën baat ay dañ lay jox rek dañ lay kenn xamut ay luxuskate fi ne léegi yàlla ñu yàlla musal ci ñi yàlla ñu yàlla musal ci ñi fuñ jëm waaye nag du leen may jàmm de seen tànk suñu tànk du leen may dara na leer buñu ñu soppikul ñom taxaw nek ci watu askan wi comme na serigne touba taxawon na nit kuy dem ci yalla du and ak buur Sëriñ Tuubaa gene aduna ma mo don Sali ñu apprécié ko pour mu nek xadi jégal ak jot dafa taxaw lank na man duma ma ben bur buur ñu ay jëmtuwaay bokkuñu fi ñu jëm dafa taxaw lank mu sa and ak ay bur donte waajuram mu mo don Sali mom dafa àndoon la jor nek bur nek xadi xaw ma euh, euh, euh, xaw ma Maba Jaxu nekk ci watu Maba Jaxu tamit di fa jàngale waaye moom Sëriñ Tuubaa mosul nangu mosul nekk ci mosul nekk ci keppaar genn genn nguur genn guur buur mu mosu ko def yow nga ne mooy sa maam lu mu amul awma ko lu mu bëggul awma ko bu Macky ñëwee nga ne ko dénk naa la Sëriñ Tuubaa Macky noo koy dénk Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa musta bëgg a ak benn nitu àdduna bu yor nguur ci àdduna nga ne nga bëgg koo dénk Macky sàll mi ak ni Macky Sall ba ne ci àdduna nga naan yaa ngi ko dénk Sëriñ Tuubaa il faut ngeen yow il faut que ngeen yeewu naxaate gi moo rëy te ëpp lu dëgg li ñuy wax amut dañ ñuy nax dañ ñuy nax bu Sëriñ Tuubaa dellusi woon billaahi wallaahi wataalaahi sama wax ji lay dëggal ñoom ñëpp li ñuy wax du ànd ak man man lay ànd ak man au moins que moo tax ma am fit am cawarte man mag ñu baax ñi ñuy wax ci réew bu ñu ñëwoon li may wax la ñuy wax mënuñoo wax lu gën a kawe li may wax li may wax dong la ñuy wax. ndax ñaari dëgg amul benn dëgg doo nga am kon yeewu leen ñi nga xam ne nag ñoom saaga mooy seen métier ak yooyu ñu bàyyi leen saaga yi ndax nit kat booy wax li ngay wax amu ci tontu amu ci xalaat lu dul dina delloo aw saaga dangay xam ne kon si nga laal mi ngi metti rek te metti metti gi moom amul lu mu ko saafara lu dul aw saaga saaga nag moom du taq ci kenn kuy saaga ba leen ko mu saaga yow nga teg li ngay teg ndax la nga teg ba muy saaga loolu moo ëpp doole li muy saaga lii li yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole kon nañu fexe ba lii yëngal liy yëngu ëpp doole rek na doole gi taxaw rek loolu moo am solo waaw léegi nag dañoo tumuraanke ay nitu diine tumuraanke ay nitu yàlla tumuraanke ay nitu dëgg tumuraanke ay nitu fit ba noppi bari la lool nitu intérêt nitum malet nitum poñet nitum khalis nitum rayante mbag nitum xam nga lak lakal nitum layam layam nitum xam nga boy wax deug ci Macky Sall ba yag bu fekkante ne dafa dem dug ci negu Serigne muntaha wala mbay Sy Mansour wala Cheikh Tidiane Sy Cheikh Tidiane babu den nga wala fenn fenn nga nga wagne ko wok saw dok yi fi mom si mom sañu ma dug li kuko wax mom kuko wax mom kon ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccu waay yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla mu dëgëral leen sàmm leen def dëgg ci seen xol yi ak fit ak bëgg Sénégal gu sax ba ngeen mën a jëmmal loolu lépp ñu àndandoo bokk ndey bokk baay di dox ci xam-xam di dox ci dëgg di dox ci bëgg Sénégal ak yéene ak jëf bu ñu ko defee tabax réew mi rocci naar yeeg libaana yeeg ñu nekk ci réew yëpp teg leen fële tabax réew mi nag ànd ak ñoom waxuma dàq leen nañ leen bàyyi ci réew mi ànd ak ñun liggéey parce que Sénégal yaa ngi fépp nag mënoo nekk Italie nekk fu ne ba noppi naan réew mi kenn du fu ne déedéet réew mi dafa ubbeeku na ñëpp yi ne waaye nag réew mi dafa am borom ñi ñi ñi moom réew mi nañu téye réew mi dafa am bu caabi buntu yoo xam ne deesu ko jox ay ay étranger dafa am caabi ay ay caabi yoo xam ne dañuy ubbi yenn buntu ci réew mi yoo xam ne caabi yooyu doom yooyu wolof doom lay wax doom yooyu ëpp na di jox ku dëkku ci réew mi boo demee Liban seen yenn doom yi caabi yi duñ ko jox ab doxandéem France kazalika boo demee Amérique noonu dàq ju kenn waaye kenn ku ne na nga xam fi nga war a taxaw xam fi nga war a yem waaye ñëw nag ba ci digg Dakar nag nga da ngay xëccoo Dakar sama waat ni man damaa fexe dem Liban di fa xëccoo meeri dama ko bu ma ko defee xam ca kasam lañ may tëj ràpp kenn ma ko génne loolu moom na ngeen ci campagne thème de campagne la moom na Dakar duñ ko jox ay naar capital bi capital Dakar Sénégal kenn du ko jox ab naar loolu moom na ci campagne mu leer amuñu ci dellu ginnaaw ndax Liban gee benn Sénégalais amul fi taxaw fa di am suuf